min bikum iseen abre daanu na ca kaso ga ba loxo ba damu allah vox populi moo ko xamal ki fi nekkoon njiit réew bu càdd fañ koo tëj kaso fii Sénégal jamono ji may wax ak yéen nag loxo ba dammu na taraj jabaram ja nag Fatima Abré ma ngay nettali nam dammee méttit baak jafe-jafe ya seew sayram fay daw turbine yéen a kaay dëggal ko na nekk nu iseen abre mettit jafe-jafe la ca soxnaam wax Fatima Abré ku ko dégg na ndeysaan pour sax mu faju ay paracetamol yi ñaar dërëm yeeg fukki dërëm yi ci yooyu de la ne léegi gi nag bu ca yokkoo loxo bu damm kon nekkinam ca kaso ga dana gën a métti keneen ku nar a dem ca kaso ga fekke abre boo moytuwut mooy Seydina Fall Bougazelli gannaaw buñ ko tuumalee wàllu faux billet xaalis bu baaxut fi mu toll nii bu ko yoon jàppee fañ koy téye garde defeere ko jébbal ko procureur bi les échos yéen a kaay ñu ko xamal 24 heures yéen a kaay na léegi tey ñu jàpp ko ndax waa section de recherche ña koy recherché lancé nañu rëbb ga ña ko loxo fuñ ko gis a kaay a mën a tax Bougazelli jàkk jàkkaarloog àttekat yi ah yaaw seet électoral charte yi jëm ci wàllu pénal fa wax na procureur rek moo am sañ-sañu tey fexe ba Bougazelli wuy ji yoon kon nag léegi procureur moom lu muy xaar enquête yéen a kaay nee na na def li war a def ndax kii mi ngi daw di dugg réew mi yoon woolu na ko àjjuma mu bañ a dem buñ ci du wuy ji de critique yéen a kaay mel ni ku naan ko procureur jaru muy sonal boppam Bougazelli moom ci boppam nee na tey ci altine ji dana wuy ji gendarmerie a yaw seetal ab bataaxal la xamlee li ni mel l'observateur dëggal ko na tey ci altine ji Bougazelli député ba ci lay wuy ji gendarme déglu ko ci mbiru xaalis bu bu bari bi ñu koy tuumal na fa ko ko jàpp fay dem kaso wala du kanam moom rawul ay gët li xam daal mooy dawoon na ajjuma bañ a wuy ji ay tey altine moom far force fra force doole mbaam wuy ji rek rappeur ba ñuy wax Kessia ak ñeneen ñu ñu jàpp ndor ci wàllu faux billet boobu ñoom it tey ci suba lañ leen di déglu la leen di xaar nag yéenekaay bi wax na ko la mu ñu wax moom source ay yéenekaay mooy ne ay kilifa ponkal ay nit ñu siiw buñ leen jàppee tëj leen kaso ñu war a tëdd ay at yu bari xam nga nan la ñuy def ba génn kaso fa ñuy tappale di lay naan sama suukar si moo yokk way yaay génnee leen ma kaso maa jabet dugg na fii génn na faa bañ mujj génnee leen Abdou Aziz Tall ci Sud Quotidien mais ni ku naan leen loolu du yoon de gis nga Sénégal gii yoon fa war a tëddee njaaxaanaay ku def tooxi doona njublan gu munti doon boo war a tëdd kaso nga tëdd kaso xanaa xamu leen ne am na ñoo xam ne ay ngonkal ponkal kilifa yu mag ñu ngi dugal seen loxo ci wàllu setal alal ju lewut njaayum dorog këpp kees ay mbir yu garaaw pour ñu tëdd kaso doo ko dégg wala ñu dugg kaso na salaamaaleykum ñañ kaso ga ñu leen fay fekk ñoom génn nañ duñ fa sax taxaw si jamono jooju nag sénégalais yu bëri ñu ngi ci kaso gi tëdd ay yu bari xam nga lu leen fa dugalam tuxam yàmba wala sàcc ganaar wala jaay dorog libération moom xëy di àddu ci dorog bu bari ba ñu jàppoon fii ci waxu Sénégal yi nay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy na jaasi El Hadji Oumar Tall ba réewum France jébbal nañu ko njiit réew mi Macky Sall si du quotidien moo ñu ko xamal yéen a kaa bi ne lii de baax na dana gën a dox jàmm diggante ñaari réew yi njiit réew Macky Sall nag xam mbégte ba pare ne ñun Sénégal noppi nañu ngir lépp lu bokk suñu maam ñi suñu jàmbaar yi moomoon ko ñu delloo su ko ci réew mi njaboot ak El Hadji kontaan nañu waaye nag am na yeneen yu des ay bagage France nañ ñu ko jox njiital jëwrin yu France nag Édouard Philippe bi joxe jaasi ji nee na ji place mooy Sénégal l'évidence yéen a kaay na leen waa léegi jaasi ji ngeen joxe yéen près cinq ans la wala ab restitution la looloo mat a laaj nag la mu laajte wut fa koo xam ba wax ko moom la sala yéen a kaay mooy juróom benn accord déggoo xaatim nañ ko diggante Sénégal ak France ginnaaw ndaje bu ñu amal ci teewaayu njiiti jëwrin yu France nay leer la leer ba ne dàng ni jant tusubaar mooy ne njiit réew Macky Sall moo waxal boppam ne ay jamono yu néew moo ko desee ca bopp APR ak bopp réewum Sénégal le quotidien yéen a kaay ko xamal xam nga waa APR fa ñoo xamaloon ndaje mu mag Macky nag ba muy wax ak cadre ya na la leen li ma fi dese bëriwut de bu leen di leer rek jàmm yéen a kaay bi na xalaat kon troisième mandat Macky xalaatatut ko xanaa maa yaakaar de ku dégg wax la mu ñu wax nag moom laas yéen a mooy ndaje moomale jëwriñ ji di Amadou Ba nekkut fa woon Abdoulaye Daouda na ko lan moo waral li ni mel nag gàmm gu mag ga mbooloo bu bari dem fa bés ba del si di ngéntali ñoom it fa ñuy xamalaat gàmmu a taalibe yi fu nekk lañ bàyyeekoo Cheikh Mouhamadul Amine Ibrahima Niass Baba Lamine gàmmu gu neex ñu yor organisation gàmmu Medina Baye xam ngeen na gàmmu international la moo tax ca biir gàmmu ga fañ fay làkk arab làkk fa français anglais olof awsa ndax nationalité yu bëri ya fa dajee conférence ya xam-xam baak waxtaan wa taalibe yëpp kontaan l'évidence yéen kaay na Cheikh Mahi Ibrahima Niass yëkkati na kàddu ci gàmmuwaat gi moom it na Medina Baye merewuñu njiitëram Macky Sall de ñàkk gi déedéet ngir muy yi na yor réew mi yorin mu waa COMAF ba yor organisation gàmmu Medina Baye Baye Mamour Niass ma leen jiite nee na liñ soxla mooy Medina Baye ñu def ko commune ginnaaw buñ jàkkaarloog taskatu xibaar yi doon amal bilan organisation gàmmu ga ci l'évidence yene kaay ca la ko Baye Mamour wax nay leer leneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne Sénégal moo jàpp Swatini di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi ba muy bëgg dee ñeenti bal ci benn stade yene kaay ñi ko xamal Sénégal léegi moo jiitu ci groupam bi l'observateur ne gannaaw ba yàlla ja tawee yëf jeeju moo toj kër ga lakk caax ya bënn mbaal ga ñetti bal la dugal record yéene kaay na gaynde kay ñoo doon buur ca siwaati ni buuru làmb ji nag Modou Lo tey Ama Baldé ma ngay leeral ci sunu làmb yéene kaay li tax mu bañ a jël quatre-vingts yi ko lig Nicolas Faye ngir bëreeg Modou Lo Ama nee na ñoom dañoo foog na man daal ma fay bëgg a nekk xaram saraxe rek maa bañ million millions laay laaj waa ma ne quatre xaalis la de te li mën bëri na dama rek nga sëgg doon man bañu ma ci bëñ bu damm wala def semaine hôpital soo jógee lekk sa xaalis